ku suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ni ngeen ko xamee nag Leewtoo 100 pour cent lamb li ngeen gis nag mooy sunu lamb sunu lamb def lew ñoo fiy def lamb 100 pour cent ak li TV lamb 100 pour cent noonu la demee ñooñu ñoo fiy def lamb tey nag ñu am ku seet si fii ci biir Africom parce que Africom groupe de presse la mais nag am na koo xam ne wala am na ci ñoo xam ne moom lamb kese la ñuy def moo tax yàgg may topp rek mu ñëw xool sunu lamb ndax temps am na wax ju xaw a yëngatu Iba. maa ngi lay ziar. ça va bien. maa yaa ngi am jàmm. waaye maa ngi am jàmm ñaar ko am xaalis léegi de. maa ngi sa ginnaaw. ana ndey ko ba faal. mu nga fa mu ngi si ay safay. ñoom a a da mooy sunu làmb. ah fii yàgg. kon gars yaa ngi ni gars yi maa leen di kilifa gi tur bi. man Abdou Baar. Abdou Fall Abdou Baar Baar. yow loo yore fi waaw man stade la nekk quoi stade laa nekk mais en même temps waaw damay ñëwaale en même temps nekkaale fii làmb quoi. kilifa gi tur bi maa ngi lay bëggee. man Cheikh Demba Ndiaye laa tudd. Cheikh Demba Ndiaye yow itam da laal ci làmb. waaw man de des Iba Kane boobu fekkee ne amul bras man lay yónni moom. Ah. waaw bien nag ay journaliste quotidien stade lañ. et en même temps aussi tamit des fois tamit dañuy laal fii. ci làmb làmb ji waaw. ñii moom xam naa leen moom mbuub ak démbele moom duma leen laaj te mbuub mbuub yaa ngi ci affaire yi de. ci loo siyaar. maa ngi la koy delloo. jaajëfal ci liggéey bi gis nañ ko nice na quoi macha allah. na waaw. a ngi bind de di waajal suba ci jeudi bi incha allah. di waaj yàqal gars yi suba ci nekk nekk ci toog bi nii. <laughs> incha allah le tout puissant. waaw eh, sëñ Babacar kontaan si yéen rek. ñëw waa alhamdulilah sant yàlla bu a wër moom dañu ñëwoon seet si Iba Kane te bu ñëwee fi faw ñu gisaale leen yéen xam nga rek gis nga liggéey bi daa ni yéen a ngi waajal suba di togg nii ngi togg ciinu suba nag waa ci day tàng jër moom. ana borom ana ki mooy ordinateur milliards yi Assane Waalo. Assane Waalo a ropop waaw kooku moom mooy loolu quoi. jëg turandoo bi waaw <laughs> ah, <laughs> saa sëñ Boubacar bon dem dem na reportage am naa léegi mu egsi waaw incha allah jaajëf. kon ñu dem xool yi TV rek gis ngeen ko dugg nañ suñu làmb dal nañ ñu ñu ñëw seet si Ibakan gis ngeen gaay ak Iba maa ngi lay ziare waat. waaw sëñ Babacar maa ngi lay di kontaan trop si sa ñëw di kontaan si liggéey bi ngeen liggéey di ko rafetlu trop waa Leewtoo di nuyuwaale sama jigéen ñi Ndeye Kumba Fall ak Aïcha Faye ñi nga xam ne jaar nañ fi on a travaillé beaucoup d'années ensemble euh, donc ma leen di suivre tamit parce que man ni ngeen mooy suivre tamit noonu laa leen di suivre parce que euh, liggéey bi ñun ñëpp ko bokk il faut parfois mu am loo xam ne. du ma ko am si yéen laa koy gisee ñu jëm si rebondir parce que lépp benn la ñu ñoom ñoo bokk fu ñuy rootee mooy teen bi mu ngi tudd làmb. Hmm. am na solo Iba Kane li ñu fi indi nag defe naa sénégalais yi ñoo ko bëgg a xam parce que fan yi dañu xëy gis yaakaar naa si benn article boo bind mais balaa may dugg foofu sax tamit dinaa laaj Iba Kane ban rôle lay eh, yore fii fii nga xam ne mooy biir Africom mais rawatina sunu làmb. waa biir Afrique moom yaakaar naa man ay affaire role yooyu sax wala ay kii yooyu mën du sama bagage en tout cas man maa jiite ñi nga xam ne ñooy bind làmb fii si ñun la dembalee Boubacar Niang Assane Waalo gi bariwuñu pour man ñëpp benn lañu daal amul ay njiit pour man daal Assane Gueye ak Assane Papa Mboup ak Dembale Boubacar Niang man daal ñëpp benn la ñoo bokk liggéey bi dañuy andi ñu xool nu mu gën a rafetee ñu génnee ko pour pour journal bi. Sénégalais yi man ko gis man ko am lu kii daal léegi nag fi muy ñëw mooy dañu gis ne que benn article fan yi ñu génn di wax ne que ku mel ni Lanjang biñ ne mooy porte parole Tay Shinger mu wax ne ñoom pare nañ ngir bëriwaat ak Balla Gaye 2 ci kaw bu ñu leen fayee bu bëri te Balla sax ëmm moo ko man mel ni yow yaa séq mu waxtaan boobu mm-hmm. wala noonu loolu nu nu mu demee loo ci mën a leeral sénégalais yi waaw loolu leeral boobu yaakaar naa jarul jarul guddal jarul ka tey su nekkoon dama bind loo xam ne amul yaakaar naa làññaa si bopp mooy taxaw ne ibakan jaar sama tur ne ibakan li ma bindal amul yaakaar naa te déglu naa vidéo bi mu def ak euh, sama confrère sa xarit Lamine déglu naa ko seet liir naa ko tamit l'observateur euh, gisuma benn yoon mu démentir ne ibakan li ma bindal amul te man man maa ko jël le mercredi passé ma jël ko mercredi passé ma koy laaj si Eumeu Sène fu mu toll parce que depuis bi ñu ko daanee ba léegi dégguñu ko fan la toll si ay entraînement am ndax dina waaj a voyager mu jox ma nouvelle yooyu yëpp si la profito comme que journaliste la man luy euh, jéem a euh, yóbbu laa ma kanam ma proposé ko si benn question par rapport ak Eumeu Sène Balla Gaye 2 ma nekk laaj ko tey Eumeu Sène Balla Gaye 2 tey bu ñu leen ko proposé nu muy def nu muy demee mu répondre ma mu ne moom su nekkoon moom lañaa buñ ko proposé xaalis bu bare bu takku un très gros cachet il va tordre le bras de Eumeu Sène pour Eumeu Sène accepter bëre ak Balla Gaye 2 c'est ce qu'il m'a répondu. maanaam day wañ loxo Eumeu Sène ngir mu jël Balla force. pour am Eumeu Sène jël Balla buñ ñu ko proposé moom lañaa moom Lagna bu ñu ko proposé xaalis boobu parce que moom xaritul Eumeu Sène la moom mooy def mooy dindi lépp ci Eumeu Sène ci la bokk moom bu nekkee proposé nañ ko un très gros kase ba léegi sax waxuñu xaalis maak moom kase bu mag un très gros kase buñ ko ko tegalee sur la table dina wañ loxo Eumeu Sène pour Eumeu seen accepter affronter Balla Gaye de une troisième fois loolu la kese la waaw loolu Lagna moo ma ko wax moo ma wax loolu au téléphone le mercredi gi journal bi génn le vendredi le vendredi bi journal bi génnee moo woo ko téléphone ma ne ko laaña bombe bi tàkk na de mu ne ma bombe bi tàkk na kay donc il a confirmé que loolu moom moo ko wax ba démb si guddi démb man ak moom déggante nañu il a il a bel et bien confirmé que moom moo wax loolu parce que tey Iba Iba Kane tey amul benn intérêt euh, euh, taxawal comme waxal euh, laaña ne combat Eumeu Sène Balla Gaye 2 Eumeu Sène Balla Gaye bu taxawee ñoom ñaar la ñoom ñaar la seen affaire la ñooy enquête seen xaalis Iba loolu sama yoon ne aussi ñoom ñaar buñ ko bu combat bi taxawee ñoom la ah, ñoom la engagé Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène mais man lii làññaa moo ma ko wax bu génne ko ci gémmiñ mu bind ko ci journal bi waaw. Mhm, mhm. léegi yow kon par rapport ak parce que ñu bëri fi mu yaakaar ne bu la nga waxee loolu Eumeu ko wax parce que ñu bëri dañ naan est-ce que Eumeu Sène wax loolu est mhm. mais kon ki yore kàddoom di moo wax mais du Eumeu a leer ki yor kàddu Eumeu seen moo wax loolu. laññaa ci boppam moo wax loolu. ñun waxuñu man waxuma ne Eumeu Sène moo ko wax je ne l'ai jamais dit moo wax bañ nañu ba tuuru photo Lagna lañ fa génnee mu toog sol maillot Sénégal Lagna moo wax waxuma benn yoon ci papier bi que ne Eumeu Sène moo ne bëri bëgg na bëri ak Balla Gaye de je ne l'ai jamais te nekkul benn yoon ci passage papier bi amul fenn waaw. liggéey bi ngay liggéey est comme genre yu demee nii faral nga ci am ay jafe-jafe ak écrits yi wala mbër yi wala yu demee noonu. yii loolu kay lu la ko li ma si am jafe-jafe na trop trop trop. Lac jaar naa si ak moom Birayim Ndiaye jaar naa fi ak moom. làmb daal moo mel noonu daal da ngay wax benn affaire bu arrangé nga confirmer bu la arrangé wul tamit nga infirmer loolu moo fi am man presque 15 ans maa ngi si làmb ji loolu daf may arrivé te dina ma arrivé dina ma mais man je suis quitte avec ma conscience man duma sosal nit lu ma bind rek nit a ma ko wax lu ma bind tey Babacar yaa ma ko wax aw parce que sosal pourquoi may sosal ban njëriñ la ma abal pour sama journal non sama journal ñu may fay donc man utuma lenn loo xam ne luy neex ma Samba la wala lu neex ma Demba Babacar bu ma waxee lim ma wax laay bind lan laay sosal Babacar mais loolu du sama intérêt sax Babacar bu ma si yoon nag donc je ne suis pas assez fou man am na fu ma jaar ba am fi am dem si tribunal si benn mbër boo xam ne du ma bëgg turam ba àgg fa ak moom donc laa loolu mu déedéet si diir sama carrière journaliste ñaanatuma mu arrivé ma parce que loolu daf ma porter préjudice neexuma parce que dama tooñ samay confrères parce que samay confrères am na loo xam ne ñu ngi ko doon kii seen xaalis te man dagg seen xaalis te si man la jaare te loolu neexuma ba si kanamu yàlla tey su ma amoon alal ñooñu mu ñooñu ñooñu ñu doon dagg yëpp dinaa ko fay par benn par benn maa ngi koy ñaan yàlla donc man awma intérêt sosal ma sàmba wala ma demba moom laay bind duma ma si yokk virgule su ma defarul sa wax am na mbër yu bare fii toj def nañu ay toj si interview man Iba ma defaraat ko ba mu ba mu jaayu ba nga xam ne day neex a liir man damay defar man duma gor garab déedéet. dangay fexe daal suuxat ko pour ku ñëw mën caa am ker lekk ca. man damay arrosé ba bëy yeeg xar yéeg nag yi képp ku ñëw mun a lekk si xob bi toog si keppaar bi waaw. solo <laughs> ñu fàttali leen nag alpulaar la jaamu séeréer ah noonu. waaw non man moom man xam nga ne man maay sa buur te te loolu yi dafa yàgg depuis El Hadj Oumar Foutiyou ba si Elimane Boubacar Kane donc yaakaar naa buur moom bu ñu koy wax ah dañ koy gërëmee sunu maam El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Ah. Cheikh Omar ñuy ziar njabootam yëpp di leen ñaanal jàmm di sàkku ci ñoom tamit ñu ñaanal mais tamit fi may ñëw tey coow yooyu bu ñu koy dégg si làmb tey mbër mi nee na dootul bëreeg diw ñu toogaat ba benn moment ñu déggaat ku bokk ci stafam ne buñ ñu fay lu ko jar ñu bëri est-ce que erreur communication duy faral di am ci yenn yi pour yow waaw mbër yi moom parfois bew la quoi parfois dañuy gaaw a bew man daal bew laa ko jàppee ah toog jiw du ma bëreeg Babacar loolu ma bëreeg Ndeye Coumba du ma bëreeg Aïcha yaakaar naa bew la parce que làmb xamuñu ne làmb dafa euh, branche bi ngay toog si làmb ni ngay toogee ak ni ngay demee benn la parfois si branche boobu nga toog branche boobu moom moo lay daanelaat mooy jékki-jékki rek fàq doo xam lu ko fàq te da nga yaakaar na fi nga toog fu solide la ne ndeket si branche bu bu cat nga toogee loolu moo tax moo leen moo leen di jay te branche boobu nga toog yaakaar nga ne tey un Reug Reug mënul ramper ramper di yéeg ba àgg si branche boobu yow da nga yaakaar ne branche boobu donkaasi gi la déedéet loolu mooy andi ñuy def déclaration yooyu Balla Gaye def na ko fi Modou Lo def na ko fi Eumeu seen def na ko fi mais après xam nga fan lay mujjee wax waxeet rek ñoom ñëpp wax waxeet lay mujjee waaw. mais ba xëy na est-ce que ki koy wax kon du da koy teg ci stratégie de combat wala pour. bëgg lu maanaam yow loo jàpp ne moo tax mu koy wax. waaw parfois am na ñoo xam ne di am na ñoo xam ne dinañ ko wax parfois dafa am fu ñuy jaar ak mbër mi fu ñuy jaar ak mbër bi ba nga xam ne dañ si amay naqar vivre ay ay ay expérience difficulté yu méttee métti nga xam ne léegi pour jeexal loolu dañuy ne du ñu bëri ak lu ak kii mais xamuñu ne léegi làmb xam nga la moo koy décanté wax yooyu wax waxeet boobu xam nga lu koy décanté xaalis. xaalis maanaam bu ay million génnee mbaa du wax ji day di bëgg a taxu wax yi génnee ñu teg ko sur la table ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu changé propos xaalis mooy tekkante si loolu. te xa ñoom ñu lu ñuy lu tax ñuy bëre. Ah. lu tax ñuy yeewu suba teel di dem entraînement. c' est l' di dem États-Unis États-Unis nga yaakaar da ngay ñëw foofu poche vide moo lay jëndaloo billet ki lay noonu da ngay ñëw mu héberger la gratuitement salle bi ngay nekk musculation loolu xaalis la professeur bi ngay fay xaalis la. donc ñoom seen gagne-pain mooy l'argent mooy dañuy bëre pour xaalis que ce soit Eumeu Sène que ce soit Balla Gaye 2 que ce soit Modou Lô seen gagne-pain mooy l'argent c'est l'argent qui fait leur bonheur lu ñu mënti am tey ay millions loolu moo leen ko gënal donc ñoom mun nañu wax lii mais ëllëg xamuñu pour seen propos mun na leen rattraper te tôt ou tard da leen di rattraper parce que xaalis bi ñu leen di tegal bu ñu leen di proposer parfois day bare ba day jafe euh, Euh, nangu bi mooy gën a gaaw ka bañ bi. sama papa Max da daan nax ne làmb moom bu ñu la séentoo fit nga fetal buñ la séentoo fetal nga fette.